alhamdulilahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalqil mursalin sayidana wa nabiyana wa shafiana ila rabbina sayidana muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi nu bokkal yàlla ñu ngi leen di nuyu ci gën gaa sell nuyoo ci gën gaa yaatuy nuyoo ci gën gaa sakkani nuyoo te muy nuyoo waa aljana muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk téléspectateurs yi nga xam ni ñooy toog di seetaan seen émission bi di dégg diini fii ci Tektal TV kenn ku ci nekk fekk nañ la fi nga toog ci diaspora réew mi ak bitim réew ñoo ziyaara la jox la loxo ziar la waaye ñaanal la yàlla defal la jàmm defal la tawféex defal la taysiir ak tansiir dafa ñu jàppandal ci lépp mbir incha allahu taala yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def defar sunuy mbir defar seeni mbir yi bu baax Cheikh Taalif bi nga xam ni tabarakallahu mooy boroom kër gi ak ñi mu ko àndoon ñëpp ñoom pëteek ñëpp rek tabarakal la ñu ziar leen waaye Euh, daal di nuyu waga bi ki nga xam ne mooy waga kër gi muy Baye Mass moom tabarakal la xam naa mi ngi fàcc waga bi ko dal yàlla na ci wér ak jàmm mu mel ni ñu ngi bëgg a waxtaan lu am solo góor gu am solo góor gi nga xam ni fu septembre tero xel yeeg xalaat yeeg xol yeeg yëpp dem ci moom ndax lan ndax njariñam ci diine ndax lan ndax bëgg bi mu bëggoon doomu aadam dimbali bi mu daan dimbali diine tabarakallahu muy maam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Ad-Dabaghi radiyallahu anhu nga xam ni weer wi ñu nekk tembe bu di septembre ca la wàccoon liggéey la 14 septembre 1997 tabarakallahu ñu denc ko fële ca kanamu baayam mi mawlaaya maam Cheikh Al Hadj Euh, kii kii waxtaan ak yéen ci loola mooy Mouhamed Dabax Cissokho nga xam ni ku nekk nag xam na cofeelam ci Mawlaay Maam Cheikh Alhaaji Abdou yàlla na gën sax te yàlla na yokk moom mi nga xam ni moom la yaakaar fii ak fanu jëm incha allahu taala ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem waaye ca darajay Seydina Muhammad aleyhi salaatu wasalaam di ziyaar bu baax sëriñ Babacar Sy Mansour al Xalif ñaanal ko yàlla defal ko jàmm ak tawféex waaye noonu la ñu nuyoo xalifa maam Cheikh Alhaaji Abdou tamit Pape sëñ Maodo si ñaanal ko yàlla yokki atam yokki wéram waaye nuyu sunu sëriñu bopp sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz nuyu sunu xarit sunu soppee sëñ Abdou mu sëñ Baye Abdou ñu ziar ko bu baax ñaanal ko yàlla moom it defal ko jàmm tànk bi ma taxawee ngir liggéeyal diine je kër maamam yàlla na yàlla yeggalil ko ko waaye nuyu sama wasila bopp mu Cheikh Ibrahim Ndiaye Khalil yàlla na yàlla defal ko jàmm moom Abdou Aziz Dabakh dafa am bayit boo xam ni Seydi El Hadji Malick daf ko bind ci xilaas bayit boobu la ñuy segg <clears throat> moom lañuy segg indil leen ko muy seen waxtaanu tey boo demee ci xilaas ci bunt bi Seydi El Hadji di waxee eh, yónni bi yàlla yónni Seydina Muhammad alayhi salaam fan la ko yónnee nu mu ko yónnee nak na ko naka la ko yónni gi dikkalee ca bunt boobu am na ci bayit boo xam ni Seydi El ma Malick utiliser na ko ci bayit boobu moom moom tamit lay utiliser ngir waxtaane leen nag maam Cheikh El Hadj Abdou to mais man bayit mooy bi mu ne yumnun wa xubbun wa rahmun maadilun wa xayaa sabrun wa zuhdun saxal xuraan bi salami li ko waral mooy euh, Seydina Jibril nee na gannaaw gannik àdduna Seydina Muhammad alayhi salaam wasalaam Jibril ñëw na fi jël fukki jikko fukki jikko yooyu nag Jibril jëlee ko fi maam Cheikh El Hadj Abdou amee na fukki yëpp ameef na fukki yëpp buñ ko waxtaanee ak yéen ñi may seetaan da ngeen xam ni maam Cheikh El Hadj fukki jikko yi fi Seydina Jibril gannaaw génnuk àddina yonent Yàlla Muhammad alayhi salaam maam dabax jël na ko di ngeen ko ngeen ko gëm donte ni kat di weddi lenn Cheikh El Hadj moo tax mu ne yumnun xubbun wa rahmun maadilun wa xayaa sabrun wa zuhdun saxal quraan bi salami moom moom la moom abdu jël ko inspecté bayit boobu waaye aw ca yoon ba ci njëkk muy yum nun mooy barke amoon na ko nag maam Cheikh Alhaaj Abdu pour ñëw ak yéen ci barke bi Mawlaay maam Cheikh Alhaaj Abdu amoon mi ngi gane àddina Tiwaawan 1904 ci loxol kan loxol yaayam ju tedd ja maam Safiyatu Ñang nga xam ni wax nañ ni bu daan xëy ba julli njël ba def wasif ak ba noppi daan na def latif dix-neuf mille et quelque gannaaw loolu daan na bojj mag ñi nee nañu benn barigo dugub wala li ko jege bu noppee daan na jox taalibe njaboot gi ñu lekk ba moom bu dooraa mos lenn ci biiram kooku imaam Safiyatu Ñang mooy yaayu maam Cheikh Alhaaji Abdu radiallahu taala anhu tabarakallahu koo yaayam bam tolloo ci njàng alquran jàng na ko ba mu toll ci njàng xam-xam jàng na ko waaye jël ko may ko cousin bi doomu jaayam bi di Seydi El Hadji Malick radiyallahu waxoon naa fi mbokk gi nga xam ni bokkoon nañ ko dinañ ci ñëwaat yeneen i waxtaan Mame dabaax ganee jamono ci entourage boobu bi mu ganee àddina 1904 ci loxol maam Safiyatu Ñang radiyallahu anha ba ko maam Seydi El Hadji Malick gi yëgee tombeeg Seydou Nourou Tall ganee si fa daf ko ne kat soxna Safiyatu am na gan gu góor demal nga xoolal ma gan ga lumu maam Thierno Seydou Nourou Tall radiyallahu anhu ñu ngi koy ziar ziar njabootam Thierno Bachir Tall ñu ngi koy nuyu ziar ko mu ñëw yàgg lool ci néeg bi moom ak maam Cheikh Hadj képp ci néeg ñoom ñaar képp mu yàgg fa lool génn ñëw ci maam Cheikh Hadj Malick ni tekk ni tekk ni tekk ba si yàgg ne ko ah Malick sa gan gade wax na. maam xaaj Malick ne tekk dikk déglu ndax ñoom ay nit yàlla lañu lu gan ga wax nee na ko ñetti ko fi indi Thierno Seydou Nour Thierno Seydou Nour Thierno Seydou Nour Tall mooy wax te nee na moom Abdou ko wax ëpp na ñu jël seen wax di ko sos mu ne ñett yooyee mooy diine ji mbokk mi ak tariqa bi ku xam Cheikh Hadj Abdou xam ne diine bi daf cee def daf cee bay waaram ba mu meññ. ku xool mbokk mi moo daan dugg fu ne moo daan dem fu ne moo daan jubale fu ne maam Cheikh El Hadj Abdou waaye tarix bi bi mu mbokk itam def na ca loo xam ni keneen defu ko ca barke am na ko ndax ba mu tollee ci njàng xaaj ma Malick jàngal na ko alquran radiyallahu anhu bi mu dëgëree jël na ko nee na jox na ko Cheikh Sayer Gueye waaye ba mu ko jox Cheikh Sayer Gueye fa mu yeggalee njàngam ak fa mu defee tarbiya mi ngi ko defee ci doxal sëriñ Haadi Touré radiyallahu taala anhu taalib bi Seydi Hadj Malick bu yemee booba la defee tarbiyaam moom Cheikh Alhaaji Abdou tarbiyu ko topp ko waaw day gudd ndax li ñu taxa li ñu taxa waxtaanee buñ ci buñ fa buñ duggee ci foofu day day gudd waxtaan wi day jël temps waaye ci maam sëriñ Haadi la la la defee tarbiyaatam waaw daj na lu ne nekk ci sëriñ Khadim Touré lu ne daj na ko métti gu ne daj na ko ci sëriñ Khadim Touré ma wax ci rek lu ndaw ay tantaam ak i mag mi jigéen ñëw nañ ci seen Hadj Malick ne ko sa taalibe ba de mi ngi sonal sa doom si ba ko ma Maodo woowee def ko ni say mag ak say tànt nee nañu sëriñ Khadim mu ngi lay sonal mu ne ko ah bàyyi sama bàyyi aadi daa bëgg rek mu jub bàyyil ma dem dellu lala alaaj Malick wax lii nga wax bettuma woon waaye wax ko say mbokk yi jigéen mu wax leen ko dellu laxas ci sëriñ Hadi Touré nekk fa nekk fa ba tabarakallahu bi mu amee juróom-ñeenti at la Seydi Haaji ab Abdou ñëw ci Seydi Haaji Malick neuf ans bisu aljuma ne ko bàyyi tàllal loxoom jël salatul fatiha ci juróom-ñeenti at allahu akbar moo tax sëriñ Hadi dem ba yéemu ci moom waaw nekk bu sëriñ gëmee taalibeem ba muy benn yoon kon aadine maa la gëm maa la gëm ma ne bu doolee ngëmam ga ba muy ñaari yoon kon aadine maa gëm maa la gëm mu ne bu dollee ma dolli mu dollee te dolli ma dolli ba dolli lu raw am xelam foofee la xaal ni bu sëriñ bu waykat mu ne way ba xëy dal ci haadi ma bocci jaasi ci way xottib xolam kon barke am na ko ci ay sëriñ daaraam barke am na ko ci baayam barke am na ko ci ay magam ñu jàll ci ñaareel bi temps bi duñu ko may kon yum nun mi ngi noonu maam Cheikh Alhaaji Abdou ko amoon barke la mbooleem ay magi ay magi toppoon Seydi Hadj Malick ni mu fonke woon Serigne Babacar fonke woon ko Alaaji Mansour fonke woon ko ay magam fonke woon ko ay mag yi daroon baayam kenn xamut nu mu toll ci barke li ma ci li mu am ba tax tabarakallahu ni mu mel mu mel ko waaw ñaareel ba bu ñu ko tax bi mooy ñu gën koo yaatal mu wax ni xubbu cofeel mawlaaye maam Cheikh Alhaji Abdou waaye ko amul cofeel la ci ñëpp waaw moom xaalis la amul noonu ñëpp ko bëgg maam Cheikh Alhaji Abdou ko amoon cofeel la ci baayam ko amoon cofeel la ci yoon Cheikh Mouhamad alayhi salaatu wasalaam ñëpp ko xam waaw ko amoon cofeel la ci yoon Cheikh Mouhamad innu qubba nabi xaalata laxmi wa izami wa damma doon riyaa yi ki dem ba ni sama cofeel ci yoon ci àl muhammad alayhi salaam dem na ba jaxasoog sama yàpp yaram dem na ba jaxasoog sama yuq te te te lii doon riyaa yi nekkul daray gistal kon kii amoon na cofeel ci mawlaaya seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ko amoon cofeel la ci sëriñam cheikh seydi ahmad tijaani xat saxaanii kaxsal mahabati rabbi min fuyudaatil xaatimi lawliyaay nee na cheikh nàndal na ma ci sama mu béy bu mag ba nàndal goo xam ni mi ngi ma nàndalee ca ca ca leeru yàlla ya nga xam ni tabarakallahu ku ko xooloon ca na ma meloon ca rëy ba nga xam ni kii ku ñu nàndal la waaye mu soppoon baayam seydi alxaaj malik tabarakallahu way ko fasang way wune sayidi xaali wa cheikhi wa walidi malazi wa xisni murshidi wa wasilati lu ne wax na ko bàyyam Cheikh Alhaaji Malick waaye mu soppoon magam jo loolu sëriñ Babacar tuus leen te bàqu ko bela am daaxi moo ko koy moo ko yaayoo ca tës moo di mbër mi ko jar waaw xalifatu cheikhi wal muxtaar yaay sunu mbër yaay fi fa jël diine ay daañam ay daanam te ñëpp la war soppoon magam ja maam Cheikh Alhaaji Mansour nekk ini xalaftu bi rabbil bayti wa tuuri wa kitaabi ma in ratan fa ay fatan fi naaka mansuura nga gis ni mu soppoon ay baayam ay magam soppoon baayam soppoon Cheikh Seydi Ahmad Tijaani soppoon Seydina Muhammad waaye nekkoon julit xaqan kon cofeel bi mu amoon waaye noonu la soppee woon mboolem ëttu diine yi daan dem tuuba moo daan dem jàmmalaay moo dem Njaasaan moo daan dem Medina bàyyi moo daan dem Daaka moo daan dem mboolem këru diine yi te jamono jooju moo magoon ci mboolem ko fi xalif kon cofeelam buñ ko waxee ñëpp daañu ma seede ca na mu amee woon cofeel ci mboolem luy mbindeef waaw raxmun yërmande ak amoon yërmande moom Cheikh El Hadj Abdou koo xam ne yërmandem dem na ci mu tukki ànd ak chauffeur ñëw fii ci yi mbir la lam dox si woon jeex mu dellu ba Tiwaawan sumbi mbubb kawam bi jàpp am melentaan bu waddee ci mbubb ga mu jël mbelentaan wi def ci mbuus woo chauffeur bi ne ko kii de am naa yaakaar fa ma toogoon ca barñ ca doj wa di jàpp fa la bokk yóbbu ko ci mbokkam xoolal boobu yërmande allahu akbar yërmandeem tabarakallahu bi mu amoon ci jaam ñi waaw yërëm jaam ñi waaw daan dox ci seeni mbir ca suuf te kenn du yëg yërmande googu kenn xamut nu mu toll yàlla na yàlla fayal na ko maam Cheikh Alhaaja buñ dee wax ci moom dañuy xaal waxtu dinaa faral di wax saa su mën na waxtaan ci Seydi Hadj Malick ba suba du ma ca sonn waxtaane Cheikh na Tidiane Chérif ba suba duma ca sonn waxtaan yonent Yàlla Muhammad ba suba duma ca sonn sëñ Babacar noonu mag ñi ma mën a waxtaane bari na ca loola waaye Mawlaay Cheikh Alhaaja Abdou mënuñoo wax ci moom lu bari ndax dañuy bañ waxee xaal suñ dënn tànk waaye nam toll ci man la moo tax daara jee ma am ca Tivaouane Pël am ko ca ñàgg muy daara maam Cheikh Alhaaji Abdu te wax naa ni daara ju ma am moom lay tudd incha allahu taala lépp lu ma am itam dana ca am ca bam doy ndax yàllaa ma booleeg maam Cheikh Alhaaji Abdu lu kenn fekkewut waaw cofeelam ak yërmandeem boo ko dee natt asamaan la xool ko du jeex waaye maadilun alxaaji abdul aziz dabbaax radiallahu taala anhu ku mànd woon la ku mànd woon la lool ku woon la lool maam cheikh alxaaji abdu ku mànd woon la màndu téem ku ne mën na cee wax màndu téem ku ne mën na cee seede màndu téem ku ne mën ku ne mën na cee àddu waaw te am na loo xam ni buñ ko waxee ñu ne dafa far te du far wax dëgg la maam cheikh alxaaji abdu ku mu maaseel moo la gënul màndu ah tabarakallahu yal na yàlla fayal nu ko yal na yàlla fayal nu ko gën gi pay borom beej jaabu weex beej ca kanamu baayam na yàlla fayal nu ko maadilun ku maandu la woon waaw maandu ba tabarakallahu lii sëriñ Babacar Sy Abdou Aziz Dabakh di wax yàlla na yàlla fayal nu ko te yokki atam la muy wax naan wax dafa am ñeenti tànk bu dajewul ci bu dajewul ci bu dajewul ci noppil mooy yow miy wax est-ce yaa war a wax est fi nga ko waxee foofu la est-ce que ki nga koy waxal moom la est-ce que wax ko ko jot na maam Dabakh lii dafa nekkoon ci moom maandu téem kenn xamut nu mu tolloon tabarakallahu ku maandu la woon Mawlaay Cheikh Alhaaji Abdu waaw waaye wa xaya kersa boo ko daan boo daan dugg ca saal ba boo ko fekkaan fii ci gël tàppe baa nga fekk ko fee ci Tiwaawan baa nga fekk ko fële ci jagsaaw bu toogaan du yëngu xam nañ ci dara waaw boo ko fekkaan fii ci gël tàppe baa nga fekk ko fee ci Tiwaawan fekk ko fële ci jag saaw ba toogaan du yëngu waaw toogee toogaay bu jekk la daan toog waaw te dangay gis ña nga xam ni mat na leen maam daañu toogee fanweeri toogaay ak ñett waaye moom bu xasee ba toog du bouger ca maandu ga ca dal ga ca yërmande ga ca mat ga waaye ca kersa ga waaw ku amoon kersa monsieur El Hadj ku amoon kersa la wax nañ ne bi muy nekk ndaw maam Cheikh El bu Abdou ci laa mag ñi wax nañ bi muy nekk ndaw bu daan dox day mel ni kuy fëllax suuf si ndax ñàkk siggi xool jaam yi xool jaam ñi ku amoon kersa la waaw ci ndawam wax nañ ni maam Cheikh El Hadj maam Cheikh El Hadj Mouhamadul Hadi daan na ko jëlee ca tool ya ca kër ga yóbbu ko ca tool ya teg ko ci ñaari xam bi safara jox ko alxuraan muy jàng kon lu ne daj na ko ci tarbiya maam Cheikh El Hadj moo tax kersa gi woon ci moom jéggi woon na dayoo Mawlaay Cheikh El Hadj Abdou kersa gu yaatu la amoon kersa gu mat la amoon waaye kerse gi dam na ba indi diggante bu yaatu diggante moom ak boroomam maam Cheikh El Hadj façon gi maanaam euh, bu fekkoon ni waxtaane kéemtaan wala waxtaane kiraama dana ko jar kon bu ñu leen waxee la def ci xeet yi mel noonu ngeen di déedéet wallahi laazim bu fekkoon ni waxtaan wii laaj na ñu waxtaane kémtaan wax laaj na ñu waxtaane kiraama kon buñ ci waxee benn ba ñaar benn ba ñaar ya mu def kon kon nga dar si gémmiñ ne xanaa kii deful loola waaw ah, waaye mësul bëgg wane boppam Cheikh Alhaaji Abdou mësul bëgg feeñal boppam maam Cheikh Alhaaji Abdou moo tax bal xaw mi di magam maam Cheikh Alxaaja Mansour daf ko xool ba si yàgg nekk abdal azizi arhinil qalba usika wasiyatan an ka tashfi kulla ma fiika fi za zamani lazi amal fasadu bihi wala tara ahadan fihi yusaafika nekk fa gudda tarfaka laa tafxas axi abadan wala takunan tuadi man yuadika waaw ah, di ko way waaw ah, di ko way man ko abdul azizi abal ma soxol xol aussi que ma dénk la ndénkaan yoo xam ne wasiyatan anka tashfi kullu ma fiika ndénkaan yoo xam ne dana la saafara waaw ndénkaan yoo xam ne dana la jariñ ndénkaan yoo xam ne dana la gunge dégg nañ ci làmmiñu sëñ Babacar Sy Abdou Aziz mu wax ni ba daan toll jamono ba jamono jàpp ko da daan yër xasida booba xool ko liiw ko ba yàgg nee na bu jógee lu mu songu daan ko waaw ko amoon kerse la waaw waaye sabrun ku mënoon a muñ la waaw maam Cheikh El Hadj lu ne muñ na ko fi waaw lu ne muñ na ko wax nañu sëñ Babacar Abdou Aziz wax na ko fii ci Tiwaawan wax na ko feneen fu dul foofa nee na bés aljuma jot na benn waay bàyyi koo këram kenn xamut lu ko dal mu ñëw rek ak si maam Cheikh El Hadj Abdou dal ci kawam wax lu ko neex waaw gën dem yoonam Cheikh El Hadj Abdou radiyallahu taala amul lu mu def mu woo Pape Sëñ Mbay Abdou ak ñenn ña fa nekkoon ne leen ma ñu dem ba ci boutique ba euh, ndax wax nañ ne sax ba waa ji di dal ci kaw Cheikh El Hadji Abdou sëñ Babacar Sy Abdou yéeg na ndax kenn du seetaan ñuy dal sa kaw bàyyi nga mën a fayu te fayuloo ko waaye sëñ maam Abdou da baax nekk ko sëñ Mbay fexeel ba sa loxo ba mu jóg jëm ci waa ji li may wax waxtaan daañu ko déglu incha allahu taala kon am na fu ma ko teg. dem ca magasin ba nee na ceeb mu jënd suukar mu jënd nañ ko wàññ nag ceeb géeg diw géeg suukar seeg yépp a cher waaye dimbali leen ñu wàññi ndax ñu mën a lekk ba suur sekkeen seeg gi waaw xam naa ni kenn lekkatul ba suur waaye dimbali leen ñu rek ngeen wàññul ñu dund gi ndax dund gi mën a jaar yoon njaboot gi mën a lekk ba suur waaw donte ne lekk ba suur am na ku mu am na am na ci ku mu ku mu ku mu jagut waaw ceeb mu jënd diw mu jënd suukar mu jënd lépp lu nit di dundee mu jënd ko mais sëriñ Mbay yow ci sama kàttan nga bàyyi ko kon ñëwal jël bagage yi yàpp ko ci woto bi sëriñ Mbay bi mu yàpp bagage yi xamul ni moom xamul ni moom fii la jëm mu yëpp yëpp mam sha Allah ajab te li ci gën a yéeme boobu fekk na mu sëgg ne mu ko daan awal nii awal ne bañ yegg ca kër ga mu yëkkati ko jox ko ko yooya yeneen la ku mënoon a muñ la ma daaneel rek waaw waaye zahadun ku dëdd woon àdduna la allahu akbar waaw temps bi ñu mayoon daa mel ni jeex na waaw waaye ku dëdd woon jamono la Cheikh El Hadj Abdou ku dëdd woon maanaam dafa jekk jamono daf ko jekk ba noppi dëdd ko moom Cheikh bu ñu amaatee beneen jotaay dinañ ci gën a yaatal waaye ku dëdd woon jamono la maam Cheikh El Hadj waaw ku dëdd woon jamono la yal na yàlla fayal ñu ko waaye saxaa ku tabe la ku tabe la woon na ma a maye ku mënoon a maye la waaw tab gi mu tabe woon loolu mun mun nañ cee bañ a sori ndax ñëpp ko seede lu ne maye na ko façon nga alal jën a maye na ko Cheikh Hadj Abdou façon nga alal jën a maye na ko yal na yàlla fayal ñu ko incha allahu taala bu ñu amee yeneen jotaay dinañ ko gën a yaatal waaye bi ñu daanalee rek quraan wa salami ku mënul al quraan la ah kay li may wax lu dëggu la ala maam Cheikh Hadj ku mënoon alquran la waaye ku amoon jàmm la waaw fukk yaa ngi noonu fukk yaa ngi noonu benn bu ci nekk temps bee gàtt waaye ñu gën koo yaatal waaye kon ñu gën koo yaatal bi ñu daanelee rek mooy li njëkk mi génn àddina maam Cheikh Alhaji Abdou ci weer wii la génnoon àddina di la 14 septembre 1997 lu waaye mën ci azkar lu waaye mën ci ixlaas lu waaye mën ci salaatul fatixi nañ ko def ñaanal ko yàlla yàlla yaatal tëraayam ba yaatu kàpp taas ñu ci barkeem xasida bu mu bind la 4 septembre woolu maam Cheikh Alhaaji Mansour borom daar ji mu ñëw mu mu way xasida bi ci mu wax xasida bi jox ko ko mooy te mooy lan bushraakumu mansuru qad walitumu siral xilaafati mawridal zam'aani waaw yaa majmal bahrayni yaa alamal huda faxaral ashirati nuzhatal akwaani yaa si ba wayhi zamanihi bal xussahu ilman wa fahman doona ma nukraani tabarakallahu mooy xasida bu riche xasida bu neex tabarakallahu yal na yàlla fayal nu ko mawlaaya maam Cheikh Alhaaja Abdou incha allahu taala daañu amaat beneen jotaay waaye gën a yaatal ci moom lii rek dañu bëggoon indi fukki mbir ya nga xam ne Jibril jëlee na ko fi ci ay jikko te moom mu am ko ba mu doy rek moo taxoon ñu waxtaane ko fi ñu daanale rek mooy di jàllale sunu mbokk sunu soppee sunu xarit muy euh, seen petit euh, taalibe Serigne Cheikh Oumy Mbacké bee ca dakaar Plateau rue Monsieur Diop di jaay ay iPhone yu mucc ci ayib iPhone 6 ba iPhone 12 ba iPhone 16 ba 20 bu dee am na boo demee ci moom dafa la koy jaay ci njëkk wu njëkk wu la te doo ci am benn coono tabarakallahu téléphone yoo xam ni boo ko amee lu ne mën nga ko ciy dugal te du fees gaaw leen dem ci seen petit. mbay euh, fële ca Dakar Plateau rue monsieur Diop nga xam ni loo bëgg ci iPhone boo demee mu jaay la ko numéro baa ngi nii di 78 433 88 01 76 4 473 56 08 te nga gaaw jox ma sama iPhone lépp lu jub ca lañ doon wax la lépp lu dëng ci ci sunu gàtt xalaat la di jéggalu bu baax waaye téléspectateur yi nga xam ni ñu nga doon seetaan émission bi buñ ci waxee lu ëpp ñu ci ciy jéggalu waaye xërt la ñu waxee jaajëfal ñu nekkoon ci kanam caméra bi petit ak soxna su jekk si tabarakàlla yal na yàlla defal leen jàmm defal na ko defal ko mbalum julit xalifa bi yàlla na yàlla yokki atam bàyyi ko ca kanamu daara ji bàyyi ko kanamu njaboot gi wa astaghfirullaha li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu